xam ñoo xam ne xam mooy gëmm gu gëmmu am ñoo xam ne pare nga euh, kon suñu mbokk yi nga xam ne yéen la ñu jàkkaarloo noo ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu fi ñu leen baaxoo nuyoo ci site bii di alazhartouba point com di leen nuyuwaat it nag ci émission bii ngeen baaxoo ànd ak noonu te moo di jataayu mukallaf mu mel ni nag noo ngi siyaare nag mboolem téléspectateurs yi ko baaxoo seetaan yëpp di leen sant di leen gërëm. rawatina itam nag sunu kilifay diine yi nga xam ne ñoom la ñuy sagoo ñuy sàmm diine ji ñuy ñaan yàlla yàlla boole ñoo ñoom sàmm naka ñuy sàmmi diine ji eh, suñu ko waxee nag bàyyiwuñ genn kilifa ak diine kilifa ak diine gi jiite xaadir yi gi jiite layen gi jiite ñeseen ceene ba salsal dabaax yu ak ya eh, ba ci ki nga xam ne moo di Cheikh Seydi Makhtar mi nga xam ne moo fi toog toogaayu xaadimu rasul nu koy siyaare bu baax a baax a baax di ko ñaanal li mu naal ci diine ji naal ko itam ci dëkk bi di Touba yal na yal defal ko kàttan ak wér ba mu xàggale ko na mu ko bëgg nu ànd koog moom. Eh, di siyaare ak njabootam itam di siyaare itam sëti sëriñ Touba yi seex sëriñ di siyaare itam sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne moo di eh, njëwriñu site bi ñuy waxtaanee te mooy doomu sang bu tedd ba sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacke moom Xaadimu Rasul yàlla na yàlla doolu ko defal fan mu gudd ànd ak wér gu yaram moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ni ngeen ko xamee nu baaxu koo ànd ak yéen dellusiwaat na nañu ci seen émission bi di jataayu Mukallaf noo ngi feggoo ak euh, sëriñ Basiru Seck ndongol Daaru Minam ci faram-fàccee bataaxelu Mukallaf waaye noo ngi feegoo itam nag ak li ngeen doon sàkkuwaat te moo di ki nga xam ne mooy Seydina Ousmane gay ngeen gis ne itam ni ñu leen ko doon waxee nu rek lay demee. saa soo xamee ne yëg na ne it woonu nu ko rek lu mu jàppante koy bàyyi ñëw laa biire doomu aadama yi ndax dañuy wax ne xam-xam xamle doole dimbale kon loolu itam tax na lu mu nekk-nekk ci ay xat-xat eh, ku ne xam na ne jamono ji fi mu ne yitte yi bari na xat-xat yi bari na waaye nag loolu lépp téewal waxtu wu ñu ko soxlaa rek mu tëral ay soxlaam ñëw wuy si fi nga xam ne moo di alazhartouba point com kon noo koy kalaamee ak sëriñ bi mu mel ni nag ñi nga xam ne tey lañu war a waxtaanee bataaxel bi bataaxel bi tey mu ngi tëddee noo xam ne boroom bataaxel bi dafa wax ne guñ ko doon tënk daal mooy gumba xelléer walla ñu ne mag mu gëmu ne gisuma jant bi kenn mënalu ko dara kon mag mu gëmu ne gisuma jant bi kenn mënalu ko dara te dafa bari nag lool baraana ñuy wax ne dëgg bu daanoo ci pénc ñu xëy di ko jeex soo ba ngoon jot te gisuñu ko boroom alal la ko for maanaam borom barke ko for dañ ko ñemewul lu tax mooy boroom barke kenn dootu ko wax ak dëgg te moom dana gis dëgg gi waaye alal ja mooy muur nag bët yi ba kenn du ko ñemee wax dëgg mu mel ni itam danga nekk boroom kër sa biir kër. nga am ne nga xam ne am na lu fa xew loo xam ne xam nañ ki ko def waaye nga teg ci sab tànk te borom kër lu mu làq ci biir këram loolu na làqu ndax dangay ngay di dégg ñuy wax ne naqaree faj ndëmu borom kër naqar naa faj ndax gannaaw moo naan yekk leen añ bi yekk leen reer bi tegal nii añ bi tegal reer bi te mooy séddale teg ci ko ko jiiñ bëti guddi day naqaree faj kon lu noonu nag. moo am ci grand place yi am ci service yi am ci suite yi am ci daayira yi muy lan muy dëgg goo xam ne kañ koy wax xam na ne lii ñu koy wax dëgg la waaye bañ na ko loo ko dara ñu ne nag mag mu gëm mu ne gisuma jant bi kenn du ci mën dara du dutee nag jant bi moom fenk eh, borom bataaxal bi dafa wax ne takk bi leen ciy jox moo di mas naa am ñaar ñoo xam ne ñu nekk ci penc mi di am lenn lu ñu doon werante kenn ku nekk di wax sa moroom naan ko maa la gën te ñooñ ñaar nag dëgg la ak nar dëgg dafa jóg taxaw ne nar yow soo ma dee dëkk xam nga ne fii ñu dëkk tax waaye bu nu génnee doo ñu may wax ma wax ndax man duma sa moroom nar ne ko yow bu ñu dee wax may wax man nar mii yow dëgg may wax ngay tontu fii ñu dëkk tax waaye bu ñu génnee ma jiital la mel ni dañoo werante nag ca pénc ma kenn ku nekk dugg sa kër ñu waaj ñu ne gannaaw nag mbir maa ngi teere ci génn gi nan génn ñu ànd génn nag dëgg ne maay jiitu nar ne ko maay jiitu dëgg ne ko mosoo gis dëgg ak nar fu ñu àndi dëgg eh, eh, nar jiitu mu ne ko demal dëgg jiitu nar yenu wëlis wi topp ci ñu dox mel ni génn nañ nag frontière bi ñu dëkkoon dugg ci beneen frontière fekk fa nag ñuy garder frontière bi kooka laaj fu ngeen jëm ñu ne ko nag dëgg bëgg wax nar bëgga wax dëgg ne ko teel sa làmmiñ maa jiitu maay wax mu ne ko waxal mu daal di wax kooku ne ko danoo gàddaay suñu dëkk am lu werante bëgg a dox nag def nag li ñuy wax touriste man ma yey ko wala moom mu yey ma loolu mën a yëkkati mu ne ko xaar leen ma daal dem fàq ay yar dikk na leen yéen mag ñàkk fay fayda ngeen yéen ñaar werante képp ma leen tax a génn fa ngeen nekkoon daal di jàpp dëgg nar doo leen dóor leen ba mënuñoo jóg ñu lor lor def fa ñaari fan fañ leen dóoree ba jógaat dëgg ne nar mu ne kaa mu ne ko nan waxtaan nar ne ko waxtaan mel nan mu ne ko dóor yii nar ne ko dóor yi bàyyil ma jiitu te nga topp sama ginnaaw dëgg ne ko xalaatuma ko man duma ànd ak nar di mu di ma jiite daal di yenwaat walis wi dëgg jiituwaat ñu demaat dugg ci beneen frontière waxaat lañ waxoon ñu def leen nañ defoon ba ci ñetteel ba nag dëgg nag sonn nag lool daal ne nar léegi li nga wax naa ko seet dañ ese léegi jiitul nar ne ko waxoon naa la ko de nar daal di yenu dëgg daal euh, euh, dëgg yenu wolis wi boole koog njàmbat ma nga naan lii de kenn mësu koo gis ma daal nit ñi léegi damaa xam dañu nangutul ak dëgg xam dañu bañ ak dëgg man li may wax lépp ak dëgg la daal dugg ci beneen frontière dëgg bëgg a nettali garde bi nar ne ko teel sa làmmiñ maa jiitu maay wax dëgg noppi nar ne ko looy euh, looy looy laaj garde bi ne ko fu ngeen jëm mu ne ko nun danoo jàngi woon xam-xamu dekkal ko dee yàlla dogal nag ñun ñaar ñi kenn ko nekk mën ngaa dekkal ko dee man nag maay sëriñu kii ci ginnaaw moom it jàng na ko waaye day tarbiyoo matal gut mu ne ko yéen dey xaaral ma dem ndax yéen des na leen fi soxla ndaxte dëkk bii ngeen dugg dafee amoon buur bi dafa am doom joo xam ne dafa gaañu bu yàggul te moom dong la amoon te gannaaw da ngeen dekkal ko dee yéen daañu leen soxla dem ci buur bi wax ko ko ci gàttal buur bi na ko demal nga indi leen buur bi indi leen ñu dalal leen buur waxtaan ak ñoom nar ne ko damay dekkal ko dee mu ne ko dinaa la berndeel jox la alal ju dul jeex su tàkkusaanee ñu ànd dem ci armeel yi ma wan la sama doom ji nga xam ne moom dong laa amoon te faatu na tàkkusaan jot na dem nañu ci armeel ba buur ak mbooloom nar ak dëgg ñu ngi sukk ci xabru bi dëgg nag fi mu nekk moom mi ngi am lu ko mett lu ko naqari ndax lu tax mooy nar lii mu wax dara amu ci dara amu léegi nag te mënu koo dindi te mënu ci dara mu daldi bàyyi nag nar buur ne ko acce na dekki mu daal ne suli suli suli suli tolloog bopp bi daal di taxaw tuuti jël noppam teg ko ci bopp bi mel ni kuy déglu lu ñuy wax naa ko uhum buur ne ko lu mu wax mu ne ko nee na ay yëreem nañ ko indil ndax mi ngi bëgg a jóg buur daal di garde bi mu daw indi yére yi ndaw si mu dikk nar del jël ba bi teg ci ne uhum uhum mu ne ko lan ci mu ne ko nee dafa bëggoon bu génnee mu am ndox moom sangoo ndax dafa takk soof buur daal di indi ay paani ndox werale mu dëppaat ab noppam ne ko uhum uhum mu ne ko lan la mu ne ko nee dafa bëgg ànd ak buur bu jëkk bi nga kudita woon ñu génnandoo mu ne ko mukk kooka maa ko fi jëlee woon kooku kay bu nay ànd ak moom na fa fa suulal ko mu ne ko déet du ma ko suul na ndax dafa am loo ma digoon may itam su ma ko dekkalee gannaaw dekkal naa ko ba wax naa man ba bëgg a ànd ak buur bu njëkk ba dekki kon man su ma ko suulee du ma fay ko mu ne ko dinaa la jox ñaar li ma la waxoon mu ne kon baax na daal di koy suulaat ñu ànd ñëw ci kër gi buur di wax dëgg di ko xool waaye nag ñi a wax. lu tax ñi muut a wax mooy sañ-sañ bi nga xam ne ak pouvoir bi nga xam ne léegi nar am na ko ndax léegi daanaka moo sës ci buur te borom alal la mu mel ni kon dëgg googu nga xam ne nar gis na ko te ñi mu koo wax wala nar gis na dëgg gi te ñi mu koo wax loola ci la tàmbalee ba nga xam ne wolof njaay mën nay wax ne mag mu gëm ne gisuma jant bi kenn mënu ci dara nar xam na dëgg xam ne lii nar di wax dara amu ci waaye sañu koo wax. kon am na ci dëgg yoo xam ne nit dana ko gis mu wóor ko leer ko naññi waaye du ko ñemee wax kon nag lii moo nekk li nga xam ne bataaxel bi borom tënkoon ci ne diggante euh, gumba xelleer wala ñu ne euh, mag mu gëmën a gisuma jant bi kenn du ko mën mënal dara. jërëjëf sëriñ Ibrahima kon bataaxel bi di bataaxelu mag tàbbi na ci loxo waaye xam naa ba lañ cee wax ñu def ni koy ko ah saaga ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo ñu duñu seetaan ci site bi di alazhartouba.com ñu di leen ko dellu di leen ko ñaanal ñu ko daan ñaanal te di ko sàkk ñoom ñu duñu ko ñaanal muy jàmm ñoo ngi leen di ñaanal jàmm kon di sàkk ci yéen ngeen di ñu ñaanal jàmm fu ngeen mën a toll mu teg ma sit yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla boole dara jëy nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam barke Ahmadul Xadim ah, ginnaaw loolu kon ni ñuy def mooy ah, bataaxel bi nga xam ne moo di bataaxelu mag mu tàbbi la ci suñuy loxo euh, ñuy wax ne bataaxelu mag nag mag a koy jàng wala ndaw lu mag yar kon sañ nañ cee jàngate euh, muy bataaxel boo xam ne mi ngi jëm ci maanaam euh, ñu mën ko wooye gumba xellees ñu mën ko wooye boroom xol bu gumba borom xol bu gumba moom mënta gis leer na lu lu lu rafet mën naa gis lu ñaaw waaye mënta gis gis lu rafet yàlla nañ ci àll musal comme ni ko sëñ Moussa Ka di waxee xam naa bu demee ba ca kanam dañ ci àgg ci euh, toj ko euh, muy loo xam ne ku ko yàlla nattoo euh, am nga natt bu rëy ndax dafa mel ni ki nga xam ne moom foofu la toll nga xam ne mënut a gis lenn lu rafet li ñuy wax ne moom la ku tedd ki daan wax si Ahmadul Xadim mën a nopp bopp bu nar a am barke nopp buy dégg ndigal moo cee sax waaye ki nga xam ne du dégg lu baax du ko gis kon mënees ko euh, digtal moom lenn ba mu gis ko mënoo koo digal lu rafet it ba mu jaar mel ni mooy ñi nga xam ne euh, mënuñoo gis ku faatu ba waaru ku leen dara mënu leen waar seen bopp yi daal ni ñuy wax na bopp bi njur toju ko moo fay nekk amul lenn lu mën a liw seen xol lu baax lenn lu baax lu mën a yëngal seen xol man koo seral wala mën caa def dara benn yëg-yëg amut am laa ay caaxaan rek ñoom loolu moo mën a yëggatu ñu yëg seen bànneex waaye lu dul caaxaan mënut leen a àggaloo fenn yal nañu yàlla musal ci jëmm ju mel noonu ah, ah loolu nag dafa yaatu dafa yaatu lool daanaka ah, foo dem fekk ko waaye foo ko fekk fu ne itam daanaka jàmm dafay jeex dégg lu baax pundul nangoo lu dub boo xam ne ña fa nekk wala ka fa nekk li ci gën a li ca gën a doy kimaan mooy koo xam ne yàlla daf koo def muy kilifa am ñu mu yilif te yàlla def mu yor façon jikko boobu mooy lor waa këram fii lor leen fële ñu jëm du ko yëg bu ko defee jëmm ju mel noonu jëmm ju ma tax muslu di ñaan yàlla nañ ci yàlla musal ci jëmm ju noonu yal na yàlla sàjni suñuy nopp yal na yàlla ubbi suñuy bët ban mën a gis li mat a gis ndax sëñ Ibrahima gis loo xam ne euh, musiba rek la lay jural daanaka goog a gis du gis ak neen la waaye gis li nga xam ne waxtu woo ko xoolee jëli ci njariñ loola mooy gis gi nga xam ne moo di gis gu mat dégg itam déglu loo xam ne amul solo du dara doo ci jële benn njëriñ du loraange looy mën nañoo wax ne déggu neen la te ki mel noonu du dem ci jataay bu ñuy defee lu jub lu dem ci jataay bu ñuy waxtaane lu jub te muy mbir yoo xam ne boo ko dee seet ba mu yàgg am na sax ku ci seen bi di tuddee ci gàttal rek muy waxee naan ma jaali sa saqaawa rek ñu dagg waaye ko jaali sa saqaawa jataay way taxee di yal nañu yàlla musal ci boobu jataay te ku mel ni kii nag ku nekk ak moom ku ne ci jotaay bi mel nii doo ngay toog ndax kooku kan na la wóor ne ci jotaay bi mel nii képp lu ma a toog jotaay way taxee di kuy toog ci jotaay way taxee di nag bu la yàlla taqalee ak moom bu yàggee mu yóbbaale la ci kon yéen ñu yàlla nañu yàlla musal ci jëmm ju mel noonu waaye xam naa ni ñuy def mooy ginnaaw euh, suñu gan gaa ngi fi toog di Serigne usmaan gay tey moo moom waxtaan wi kon ni ñuy def mooy dañ koy jéem a jébbal kàddu gi. Euh, moom itam mu euh, def njàngatam ci bataaxel bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu seetaan ci Alasar Touba Télécom ñu ngi leen nuyu di leen seere di leen balaax di leen balaax ñu ngi lay si Ibrahima Ndiaye maam xilaalu ni nga leerale gumba xolloor ak silmaxa leer bu leer nañi di gërëm itam Basiru Seck borom bu neex bu baax bi ci ni mu leerale ba indi xisa ci du sixaar waaye walla suñu musaaka dafa wax ne boroom xol bu gumba moo raw borom bët yi fettagut am ñoo xam ni seen bët gisut waaye seen xol mi gis-gis bu leer naññi naññi silmaxa nekkul ci bët nekkul ci bët dañ ko loolu daa sayes rek la takk bi ma la jox rek xoola Seydina Muhammad alayhi salaam ngeen ji mbindeef alayhi salaam bi nga xam ne suñu borom rañaane ko ba mu ñëw ba mu ñëwee Abu Jahal da koo tiñal ne ko doo bàyyi sa wax yi ngay wax waaye banqal sa benn tànk taxaw moo def ko mu ne ko banqal ñaari taxaw yonent bi alayhi salaam ne ko loolu mu nisu ko mu ne ko nga bëgg a nax nit ñi nag naa dangaa demoon sa borom ana raas boo jaar ba dem Abubakar Sadiq foofee la yuuxoo daal ne gëm naa ne Seydina Muhammad alayhi salaam wax na dëgg foofu la amee garaatub sa dex nga gis sunu jàmbaar ci xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ay tuuma yi nga doon tuumaal ñi tuumaal seen xool daa gumba moo tax ñu yóbbu woon ko fu ne yóbbu ko fa dañ ne ci ay nattu ak tiis loo xam ne kenn mënu ko xayma ba keroog ba nga xam ne sunu borom muri na kiiraay li ñu gis nag fukki officier ak ñett ñu daal di tiit di arrière ba daal nag buñ ko kenn wax kenn lii bu kenn ñu daal ñuy sëñ bi ne ko waaw ñii moom daa mel ni waxtu yaa ngi ànd ñoom mu ne ko waaw nga xam ne sëñ bi nga daam jege na ko lool. Mm. waaye moom la sëñ bi doon wax naan laaj bi ci gànnaar jay bi ci kajoor xabal bi ci nasaraan kulu moom muccoo ci. Mm. ndax tubaab bi dañoo xereñ lool am ay jumtukaay yoo xereñ naar dafa dañ kumpa. Mm. naar maanaam mën na gis gëm waaye du dégg gëm. Eh, kajoor dañuy jay gànnaar ba muy mbëkk. Mm-hmm. bu ko defee nga jeexu Sëñ Tuubaa na moom rekk ci mucc Sëñ nag feeñal gi ma feeñal yàlla moo tax ñëpp jàpp ko yàlla parce que bis boo feeñalee yàlla yàlla feeñal la waaye bis boo feeñalee sa bopp yàlla nëbb la moo tax ñu bëgg ndaw mu bañ di wane kurus di bañ di bañ sol grand boubou ba am jamono ba làq juróom fukki su ko làqee nag mën naa feeñal kurus mën naa sol grand boubou waaye kurus saa yoo ko feeñalee rek mu nëbb la gis nga aw gis dafa baax loo gis rek xool ci lu rafet loo loo xool lu rafet lu rafet da nga cee gis mm-hmm. waaye am ñoo xam ne mun ñoo gis lu rafet mukk mukk yàlla moo leen nattoo loolu mm-hmm. wala yeesu bi lay waaye boo def koo gis lu rafet da ngay xool ci moom moom ngi xalaat ci moom yàlla du du sa yaakaar mukk mm-hmm. loolu kon lu jër a jàpp la lu jër a sàmm la kon xam naa ñu taxaw ni foofu ba kaar gu diwaat ñëwaat ci ñun ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm salaatu wasalaam ala rasulillah <laughs> jërëjëf sëriñ Seck ndongal daaru Minam ci faram gi nga xam ne def nga ko ba tey itam ci lii nga xam ne moo di mag mu gëmu ni gisuma jant bi kenn du ko mënal dara wala ñu tuddee ko gumba xelléer lu ci mën di doon ñoo bokk ab àtte jërëjëf itam Seydina Ousmane Gaye yow it ni nga leerale lii nga xam ne mooy temu tey bi gumba xeleer walla mag mu nga mën a gisuma jant bi xam nga maam Thierno balaa may dem rës dama lay fàttali ne bariwaana kuñ naan daa bëgg werante la ko koy yóbbee mooy dafa daje ku gis jant bi ba noppi gëmën a gisuma jant bi xam nga kooku kenn du ko mënal dara dafa am ñoo xam ne doo leen waar ba ñu waaru doo leen wan lu ñu gis doo leen wax ba ñu dégg nga xam ne daal seen nopp yi muuru na seen bët yi gëmm nañu ko waaye seen xol léegi wow na ba duñ waarooti soo déggee borom bi tabarak wa di wax ci alxuraan xatamallaahu ala xulóobihim wala samihim wala absaarihim xisaabatun walahum loolu mooy ñi nga xam ne seen xol kaste na doo leen waar mukk mukk mukk mukk ba ñu waaru seen xol yi wow na kaste na ñooñu nag bokk na ci ñoo xam ne boo leen waranteeg ñoom ren ba déwén di leen wan yàlla duñu ko gis wala samihim am na ñoo xam ne seen nopp yi def dañ ko xas buuse fatt nañ nopp yi doo leen wax mukk ci yàlla mbaa ci sunu kilifa yu baax yi lu ñu lu ñu dégg loo leen wax day mel ni yow mu jël pepp di ko ji ci wu xeer suba ba ngoon jot dara du dugg ci ñoom ni nga xamee ne pepp mënoo ko ji ci aw xeer maam na ba pepp mi dugg ci xeer bi noonu lañu mel mënoo leen wax mukk lu tax mu dugg seen nopp yi. wax yàllaa ko wax te yàlla lu mu wax jeex na mu mel ni itam maam Thierno am na ñoo xam ne seen xol dafa wow la ngay wax nit ñi ba ñuy daanu ñii seen rongoñ tuuru ñii di yooxu ñii génn seen alal di ko joxe ñoom dañuy def waj wajiral seen xol dafa xas-xastewoo du ñu lu ñu def ci xeeti jaamu yàlla njëstal la waaye seen a ngëm taxul ñu def ko man ñoo njëstal na nga jóg kàbbar ñu jóg kàbbar nga jàpp ñu jàpp nga julli ñu julli nga woor ñu woor waaye li wér te wër mooy teguñu ko fenn amuñu ngëm waxaan laa aqul loo bi la yàlla wax ak seeni xol ñooñu daal xam nga lan la ensaabun alimun rek yàlla yàlla rek mën ci ñoom garab garab ga mooy lakk yàlla ci yàlla musal nga gis euh, maam Thierno nit su fekkee ne dañ ne ku dëgër bopp la ku dëgër bopp la jàppal ne kon nit la koo xam ne su xasee ŋàbb wax lu dul lu dul dëgg mbaa mu gëm lu dul dëgg itam kenn mënu ko caa jëlee ñooñu nag ñoo bokk ci li ñuy wax naan mag mu gëmm ne gisuma jant bi xam nga teewul jant bee fenk ma yow yaa gëmmu sa gëmmu yow waaye jant bi mënoo koo tee fenk jant bi moom fenk na soo ko gisul teewut mu fenk kon yow sikk si ci yow la nekk waaye nekkul ci ñi nga xam ne gis nañ jant bi te loolu day dox ci werante bi ci kër yi ci soxna yi ñaari baraana sëy yu gis yu tas yoo xam ne la ko tas dëgg-dëgg boo ko seetee mooy ku ci war na nangu te bañ ku war nangu ak dëgg te bañ dëgg ñaari tas na sëy te loolu nag dafa bari lool te yaatu waaye ni ñuy def maam Thierno moo ñu dem rësi ànd ak sunu sponsor officiel yi dellu si ci biir waxtaan bi. allo Souleymane papa. waaw sa soxna si maam jaara maam Diarra dafa doom crédit bi da jeex na. Mamadou Lamine sama papa dafa ma woo léegi crédit dem dagg. des desuloo foofu carte. waaw Souleymane xanaa xamoo Kool Touba. Kool Touba. toogal ma woon internet la boo xam ne nii foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga jëndal crédit ku la neex. sa baay boobu la doon woo léegi mu dagg mën nga koo jëndal crédit léegi mu jot ko ci portable ah bon bien sûr maam jaara moom mën nga ko jëndal. mën nga jëndal crédit say am di jàmm say xarit ak ku la neex. te rax ci dolli boo nekkee fii ci États-Unis wala nga nekk Canada non seulement da mën a jëndal keneen mais di nga mën a jëndal sa bopp et en toute sécurité. damaa lay wax rek. Uh-huh. ne ko euh, maam Diarra am na am na gone. kër gi mu wax ko am yàlla baax wax naa ko ko. Uh. waaye kër gi baa mu dagg. waaye jot naa ko wax moom ne ko am nga doom. Ah, bu bari sax. jógee ci service bu ñuy wax Pôle Touba. woo woo ko yeggale ko wax ko doom ji na ko doom ji góor yi. kon maa ko ci woo léegi. ci ah maam. waaw. diggal naa xoolal sama portable kat daa sonné. ah day sonné ma message ma. xaw lu mu doon. ah yow it demee message bi lañ la envoyé. muy la gis bu ñuy wax Kool Touba am nga crédit. kon dañoo bokk ah, ah, ah, sëñ Basirou loolu yaatu na lool mag mu gëm ne gisuma jant bi kenn du ca man dara yaatu na lool lool lool lool lool soo demee lu mel ne jataay bii émission muy jataayu mu kàllaf ñi mu kàllafa nga fa moo xam ne dañ koy wax ak dëgg goo xam ne ñëpp a cay ànd na ko lii mooy dëgg waaye du tax mu nangu. waaw yëpp sëñ Ibrahima. naa wax ji mënut a yaatu ndax daanaka waxtu wi jeex na waaye dafa mel ni loolu ñu wax yëpp nag euh, foo ma cay gisee mooy dafa mel ni euh, mag ñi ñoo koy ji ci njaboot gi am na noonu bu nit doonee mag mel ni fekk ca ngoneem la ko tàmbalee woon euh, ndax gone du teel a jóg dañ koy teel a jógal anglais yi dañuy wax naan di children of the white people ñu ne xale bu ndaw mu ngi mel ni kayit bu weex luñ ca bind lu ca bindu rek dañ ko caa def Euh, leetal bind bind jox la nga jël ko jàng ko gis lu dagg sab xol ba ngay xott kii ak ak di ko lakk fajul lenn fexe la gis ka bindoon bind ma loolu mooy li ci am solo kon gone dañ koy teel a jógal teg ko ci aw xàll bu màggee dana teel a xam bu bu bu ki xas xamu yoon bu jaadoon jaati ñàll bi bu yàggee rek mu ñëw ci xàll bi te xam ne yàlla xàll wee gën a jub moo gën a noppale kon wax ji dañ koy tënk foofu rek ndax waxtu wi dafa jeex ba noppi Euh, kon ñu ngi tàggu euh, suñ mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool euh, ci site bii di al azhar touba point com ñu ngi leen di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh kon sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatulahi ñu ngi lay sant ci li nga leerale gumba xolloor ak gum gum silmaxa waaw ñu ngi lay nuyu itam di la gërëm sëñ Basiru borom turu neex bu baax bi borom Daaru xanaa di wax rek ne loolu maanaa dafa am bis ma dégg kuy coup d'état maanaa ku muy coup kilifa kilifa ak lislaam ci benn yoon sax la bokk waaye di ku mag koo xam ne dañ koo doyloo jox ko seen kàddu mu ne da koy jéem a lore man ba ma ko déggee dama moom de daa gumba parce que bu gumba wutoon dina xam ne yàllaay sàkk njiit ka ka yàlla jiital bañ jiital ko doyloo ko kooka yàlla moo ko jiital moo koy aar ndax ba mu ko neree lor si musiba daal ci kaw moom moomee. foofu ba ma ko déggee rek laa xam da ciy mujj ma ne moom dafa dof waaye foo fekk njiit ñaare njiit sàkkul boppam. Mm-hmm. yàlla sekk njiit te ngir li yàlla fu ko soob koy def. Mm-hmm. waaw wa inna fadlahi la tamussar yàlla mooy seet ku ko neex mu jokkoo lu ko neex waaw yu ci ma ni saw ni ba sax ko defee nag nangu dugg yàlla bokk na ci màndargam way texe waaye gis dëgg nga lànk fanaaral ne du dëgg. boo ko defee itam li sëñ Ibrahima wax rek jant bu fenk moom xaj bu koy baw du ko tee mu fenk. Mhm. kenn mu ko kenn mu ci dara. kon nag bokk na ci maanaam mooy taxee nangu dëgg nangoo gis dëgg te lépp loo gis te yonent bi sa sam neewoon na gisee seen wu rafet wax ci waxin wu rafet yàlla day fay wax yu rafet di wax jëf ju rafet. kon yàlla na xiir ci yàlla yàlla xiir ci boppam. tamit sat mustaqim ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci invitation bi di gërëm Ibrahima Ndiaye maam Yaxi Laalo di la gërëm yow suñu Basiiru Sekk mhm. di gërëm maam Thierno bi ñu àndal ak seen soxna bu maar ak si Moustapha Seck di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ba lii mën a am ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yàlla na sama borom gërëm liggéey bi tàmboom benn toppaat jërë ngeen jëfati salaatu wasalaam ala rasulillah euh, jërëjëfati kon xam naa ne wax ji fa tabarakallahu mat na sëkk euh, daje na itam ak waxtu wi jot na sëkk kon ni ñu def rek mooy gërëm ñu ñu doon seetaan sant leen te xamal leen ñu doon def waxtaan wi ci faram-fàccee bataaxel bi nu ngi ci àndoon ak sëriñ basiru Seck ndongol Daaru Minam ak kii nga xam ne moo di Seydina Ousmane Gaye poète borom xam-xam bi ngeen dégg niñ ko faram équipe technique bi ma àndaloon nag caméra ñu ngi ci ànd ak euh, sëriñ Maam na fay réalisateur ñu ànd ci ak sëriñ Soy Mbacke Mar monteur ñu ngi ànd ak euh, Moustapha Seck Ndambaaw waaye resi ñu ànd ci ak sëriñ Lamine Touré. ki leen doon présenté émission bi nag di seen xarit Ibrahima Ndiaye ñu leen di ñaanal jàmm di sàkku ci yéen itam ngeen di ñaanal jàmm su suma salaatu wasalaam ala asrafil mursalin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu